internet yi foo mën a nekk rek ñoo ngi i nuyu di la ziar te nag ñu ngi fii Colobane li fi dajale nag muy open press ah champion bi nga xamante ni tey moom lañ jàkkaarlool muy Mor Kang Kang am bés bu rëy nag waaye avantage rek dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan ginnaaw bi nga leen baaloo ak ba pare jërëjëf sëñ Abdou Karim jërëjëf sëñ Abdou Karim jërëjëf sëñ Abdou Karim ginnaaw ma sant yàlla julli si yoon bi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax a baax a baax waaw Mor Kang Kang naka nga waajalee sa combat bi waaw waaj naa ko fépp boo gisee xam ne fecc mi ma fecc boo amul condition doo ko def waaw nag dama koy doole sant yàlla bu baax di wax ne waa Colobane nañ ma jàppale nañ jàppale seen doom Mor Kanka ku ci mel ni Thierno Ndiaye maa ngi koy woo ci combat bi ku ci mel ni Kale maa ngi koy woo seexu bàjjen euh, jarba bàjjenu xale yi seexi sama seex yi Mourtala ak Sëñ Saaliw ku ci mel ni seen maam maa ngi koy gërëm ku ci mel ni amit Dieye maa ngi waaw da nga may may tuuti ma da nga may may tuuti ku ci mel ni Ameth Dieye bu Touba moom gis nañu li muy def jàpp na ci bu baax ku ci mel ni Ibrahima Fall bu Kër Samba Kane maire jàpp na ci bu baax ku ci mel ni Tyson bu Touba Mbacké jàpp na ci bu baax ak Jibi ak ñoom Maas ak Jibi caaw maa ngi koy woo ci combat bi waaw wasalaam. ni nga waajalee. waaw ni laa waajalee. moo mel yaram bi dafa tàng nag. waaw force sant ndax dañ may gërëm dañ may euh, jàppale tamit di ma ñaanal mhm. kon force sama sant ku ci mel ni bawol bawol yi maa ngi leen di sant bawol bawol yi aw ma seen fay su moor jógee rek jóg nañu bawol bawol yëpp maa leen di sant képp ko xam ne bawol bawol nga rek su ma limee damay juum moo tax ma ne képp ko xam ne bawol bawol nga rek maa ngi lay sant di la lu ci mel ni Joal Jilaas maa ngi lay sant bu baax lu ci mel ni Casamance maa ngi lay sant bu baax a baax a baax baax a baax ñëwal ci Ali Kalaj bi nga waajalee waaw kooku li ma koy wax bariwul xamoo la 24 soreetut ginnaaw suba moo des kon danoo war a jëflante man ak nee naa la combat bi man ak moom jàmm amut ba keroog ñuy ba ba arbitre di tàllal suñu loxo waaye jàmm amut. loolu ah, dama koy wax non euh, jàmm xam nga ne euh, bëri dóor du jàmm. kon lépp kon lépp dañ ko war a euh, poste fula wala si njàmbaar ba yàlla may ñu lim ñuy may si kàttanu yàlla. Ah. Mor xadar ji ngay demee. baa boo ko yóbbaalee ca combat ba Alioune Seydoux la corrigé. non non non non Mor ni muy waxee noonu lay bëree. man euh, mbooloo daa topp daa sama ginnaaw. lu ci mel ni waa Colobane. ku ci mel ni. ku ci ak ma Abdou. ak mafia bi mafia bi xam nga rek su ma limee juum Racine maa ngi koy sant bu baax ak Père Mbaye Guèye ak euh, maire Dieng maire kii nu mu tudd sama maire bi yaay su bay Dieng maa ngi woo ci combat bi ñoom ñëpp nañ ci jàpp waa kër Tam waa kër bu baax ñoom Tam maa ngi ko su mel ni ñoom ñaaña ñoom Fatou Modi ñoom perte bi daal ñoom junior dimanche. yooyu boo paree nga woote. parce adversaire bu mas a jàpp surtout ci espoir yi bala laa daan dalay duma doog laa daan. waa incha allah nañu nee na mënoo xeex xamoo nu ñuy moytoo ko. Euh, Modou Anta man xale laa man waruma jàng dara lépp dama ko war a tarbiwu kon tarbiwu naa lépp yàlla mi may ndam yàlla na ma yàlla may ndam le jour ba xam nga adversaire bi est-ce que umpale woo ko Alioune junior parce que ndaanaan la de adversaire bi bëri samay mag bëri samay mag bëri naa sama papa kon ku si mel ni mbay guy mag dina ma won kala bi ma koy daane wasalaam aca mama pël war a jàmmaarloo sànq dama depuis début bi waaj waaj ko philosophie mooy di waaj waaj ko waaye di waaj tamit waaj ko ak li nga xamante ne yaakaar naa ne mooy ni waaj combat bi waa ànd ak samay mbokk rek lu ci mel ni père Budi Maxi kooku sama papa la sama lépp la barke Sëñ Fall ku ci mel ni Cheikh Mbaba Zallo ñun ñëpp nañu ñëw ba jour ba ak Baye Bada ak père Balla ñoom ñëpp nañu ñëw ma jàpp gan gi daan ko ku ci mel ni père Maxi sa naa la gërëm naa la gis naa physique bi nga def si man barke Serigne Fall la jël yal na la yàlla fay yal na sa saal bi dem ba dooni saali saal bëri lépp lépp laa waaj bëri du jàmm bëri takal na ngem loolu du jàmm mais moom nee na mënoo xeex mënuma xam ko jóg bu jour ba fu mu taxaw ma fekk ko fa na taxaw rek xaar ma. fu mu taxaw ma fekk ko fa man dama gis ne da nga wàññi dama gis ne da nga a oyof par rapport ak sa combat yi nga passé. sama combat yi passé combat bee ko waaj wala laaj. waaw combat bee ko laaj li ma physique moo bari. combat bi moo ko laaj ko oyof baax na sa jëkkante ak Alioune Seye Junior. Alioune Seye maanaam daa mat 100 kilos. am na doole de gis naa ko man 120 kilos fu fan nga ci toll. parce que xam na ne ay xale yu ndaw ñoo fa nekk. te mën nañoo toroxal grand combat baax maa ngi koy woo. baax woo naa ko si combat bi jàpp na si bu baax gis naa otoom li ci def gis naa ko bu baax Alioune Seye koy ñaan na naxaar bu jour ba mu fekk li muy fekk ñëw daanu si kattanu yàlla. nee mooy dirissé moom lu mën a am. mooy dirissé non mag la bu dirissé daanu jël bu yomb. na taxaw xaar mënu laa dirissé non non mënu ma dirissé man damaa am damaa ànd ak xale yi ndaw lu ni waa la àndal ah, juróom-ñaari juróom-ñaari juróom-ñaari njëfun paal yëpp maa ngi leen ndereb boox aca jaareel foofu woote wooteel waaw di ci mel ne bàyyiwuma njaan për gin kombelaan bàyyiwuma mbuubaan njarnu kër Samba Kane bàyyiwuma euh, pir bogal ngaay Louga ñu alt ndangal ma Fisel Mbadane ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi Touba Mbacké waa Jilas waa Joal waa Ndam-Ndam ñëpp maa ngi leen di woo ñu jàppale seen doom lu ci mel ni waa Gandal maa ngi leen di woo ci combat bi ak wa Njamsil wasalaam ayca jaajëf incha allah jërëjëf